asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 11 juin 2020 ñoo ci yëglikaay yi sunu lamb la xëy dooreeti ko tey yëglikaay ba nag tey moom ñeenti mbëri ñeenti champion yu mag a mag a mag ku ci nekk ca ñeenti ñooy moom dégg nga roi des arènes moom la ñu xëy tey andil ñu ko ci xëtam mu njëkk ku nekk tam sol sab costume takk sab karawaat di def say pas de maanaam daal di fecc muy ka nga xam ne moo di Balla Gaye Mohamed Ndao Tyson Yaxya Joob Yékini Modou Lo la roi des arènes mel ni ki nag yëglikaay ba tey ci xalimaak Abdoulaye Dembélé daal xëy na samp laaj di laaj ndax état bi ndax warta sauver li nga xam ne moo di làmb ji li am ba des daal loolu mooy laaj bi nga xam ne tey ñëw nañ di ko laaj mel ni ki nag mbëre fi nekk ni moom covid 19 ba jàpp na leen mataar ba tamit mu mel ni ki ba moom est ce que pare na bopp pour décanter ko waaye am na koo xam ne muy professeur Djibril Seck moom la état bi wala boog sax état moom moo war a sauver xam ne nii moo di làmb ji loolu yëglikaay bi di sonal ba xëy tey sampal ñu ñu ko ci ab am na koo xam ne nii moom xëy na wax ay dëggam muy Omar Diagne ñu gën koo xam ci turu Omes Omes moom nee na amul amut ci lamb menn mbër moo xam ne daal pare nga ngir jiite la nga xam ne ni moo di seen sabi maanaam yore ko moom Omès daal daa mel ni loola moom àndu ca te itam gisu ko tey suba waxi noppi waaye mu ca de Alioune Sarr itam daal xamal na ko ne daal wàllum critique moom maanaam jog toog xoolaat sa bopp def sa bopp ay critique ne ko loolu yaa ko war a def kenn waru la koo defal yaa war a taxaw defal ko sa bopp xool mbir yi ndax jaar naw yoon wala jaaru yoon omes loolu la xëy tey di ko ko wax keneen koo xam ne nii moom ay mbiram gëj naa jaar yoon wala boog gëj am combat bëri muy assurance bu mbuur mu mel ni ki moom ñaari at a ngi nii yu teglantoo yoo xam ne daal gisee su ko mu takk ngemb bëri li nga xam ne moo di làmb ji mel ni kon daal moom daa mel ni daal circulation làmb ji xaw na caa riir su ko ak ay bët yëgle kaay baa xëy wax ñu ko keneen koo moom mu ngi ci làmb ji ab xale di sëtum ka nga xam ne moo di Fodé Doussouba ñu koy woowee fils de Fodé moom daal nee na leer na ko ne day bés mën naa ñëw mu nekk li nga xam ne nii daal dominer làmb ji wala boog daal jël la nga xam ne nii moo di place am ci mbir mi jàpp na ne daal moom làmb daane ci deretam loolu la xale ba xëy tey di ko wax wax na lu leer a leer daal ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni kii nag moom moo di Gaston mbeng Gaston daal la mu waxoon démb daa mel ni xëy na tey di ko fiddili maanaam daal kalaaf la bëgg a indi ginnaaw bu corona bi jeexe la mu bëgg nag mooy tafaatin rëg-rëg Eumeu Sène Bombardier waaye ki nga xam ne nii moom moo di Gris Bordeaux ak Sa Thiès ak Balla Gaye Boy Niang ak yeneen combat yoo xam ne daal Gaston Mbengue moom fas na ci yéene xar tànku tubéem taxawal ko yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ka nga xam ne tudd nañ ko léegi moom muy tafaatin mel ni ki yëglikaay bi ñëw na ci moom ak itam taxawaayam la nga xam ne moo di TNT ba ak ay tournoi yoo xam ne jot na koo bare te kalaf ba la nga xam ne moom la ci jële ci ay résultat sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko bu fekkente ne nag tournoi ba nga xam ne nii moo doon ca kalaf ba la moom benn victoire la fa jotoon jële ak ñaari défaite waaye TNT ba moom ñaari victoire ak benn défaite yëglikaay baa xëy ñëw andil ñu la géant di bawal xamal ñu ne daal treize victoire am na ko ci carrière am ak juróomi défaite maanam cinq défaite lii la tafaatin jot a def bu fekkee nag moom tafaatin moom dañoo bëgg mu bëre ak ka nga xam ne mu di rëg-rëg wala Gaston Mbengue bëgg ko moom tafaatin moom ca record mu ngay xëy di wax la nga xam ne nii moo di ay priorité moom la mu jàpp ne ne ki jiitu ci ñi mu war a bëreel daal ne na du kenn ku dul borom taay si nga di Eumeu Sène Maja Pikine ñu ne ko ak kan mu ne Lac de Guiers numéro 2 mooy ñëw tegu ci ñaareel place bi loolu mooy tànnuk tafaatin waaye yemu ca Gris Bordeaux troisième tigre de Fass ba tamit tafaatin boole na ko ci ña nga xam ne jàpp na ne war naa laale ak ñoom yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko ka nga xam ne moom moo jiite amal daa ñu naan ko Saliou juuf ci record mu nga xëy di fa wax moom ay affiche am la joxe am na boo xam ne daal wala ñetti affiche yoo xam ne jàpp na ne neex na na ko def lool muy Modou Lo Ama Baldé Saliou Diouf nee na avis dootu ko dàq ka nga xam ne nii mooy Reug Reug Sa Thiès itam jàpp na làmb mënu koo dàq Siteu Papa Sow waxi noppi loolu mooy waxi Saliou Diouf kenn koo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na ci moom ci làmb simple ji muy selemele sele daal ab taxawaayam ren Dakar moom lam fi jot am bariwul daa mel ni benn final la fi am da koo ñàkk waaye li des moom ci ay trophée jot na ko am fa nga xam ne mooy ci réseau yi toll ci juróom record a xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu waaye li may ñaan daal mooy Gaston Mbengue moom yàlla na dellu siwaat ba mu bëgg yàgg maar ndax nag fi mu nekk nii de lu wax lii wax laa soxla nañu ko de waaye ka ca des moom dañu koy ñaanal rek muy lig Nicolas ca la mu ne yàlla na ko ci yàlla génne barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndax nag làmb ji fi mu nekk nii soxlawaat na ay promoteur ñu renforcer doole ji ngir mbir ya gën a neex maar salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ko def euh, comme ni ñu ko defee chaque jour rek andi ànd ak yéen si li nga xam ne ni mooy seen revue de l'arène ginnaaw bi nga xam ne Babacar def na revue de presse bi ñu daal di dem ci li nga xam ne nii mooy jàngat bi ñëw li nga xam ne tey euh, yéen a kaay andil lañ ko Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssa Faye mbaa yaa ngi si jàpp naka yëngu yi oh. alhamdulilah. <laughs> cool waaw Babacar dañuy daal di dugg ci li nga xam ne nii mooy euh, waxtaan bi. daal di ñëw ak euh, suñu lamb tey mu ñëw di indi laaj ndax euh, état tey warul mu jàppale li nga xam ne nii mooy lamb ji daal na si laaj euh, ay xalaat nag parce que ki nga xam ne ni mooy Djibril Seck ñëw na ci ne nag ak lu mu ti doon daal nañ jàpp ni lamb moom enjeu national la. waaw maanaam daal enjeu national su ma ko déggee mooy kon état war na ci dugal loxoom parce que nekk na mbir mi xam ne nii amal na njëriñ réew mi et normal loolu mooy yoon parce que sunu sport national la yaa ngi dégg. bi nekk suñu histoire nationale ba pare nag kon defe naa. Babacar takk masque wàccee ko amul njëriñ de. ay sa masque bi kat da lay ay masque yi da ngay réew a tas ay sa fay c'est c'est dur ah les masques là yàlla yàlla na nga jeexal ko ndax ñu tàqaliku li dafa métti daal. amiin waaw mais li am solo daal mooy làmb ji moom état war na ci gën a dugal loxoom xam nga tey bu corona bi jeexee comme ni mu ko dugal ci ne secteurs yi promoteurs yi mu may leen doole appuyer leen ci wàllum finance. bu ñu waxuñu finance nag mooy du leen may xaalis non parce que promoteurs yi soxlawuñu loolu mais tamit xëy na soxla nañ koo xam ne tey état dimbali leen des fois parce que ay société nationale nga fi yoo xam ne sénégalais yoo koy jëfandikoo ñu ñuy spor ñu ñuy sponsorisé yenn sport yi ñu jàppale ko noonu làmb sponsorisé leen yombalal leen maanaam seen ay frais d'organisation ci arène yeeg stade yi ba nga xam ne ni mbir yi dina mën a jaaroon ba làmb ji mën a suqalikuwaat mbër yi mën a bëri parce que secteur la boo xam ne bëri na lu muy defar ci réew mi comme ni ko euh, transport bi defee ni ko commerce bi di defee ni ko parce que lépp lépp pour réew mi développé la rek quoi. Mhm. ak ki nga xam ne ni mooy euh, Gaston mais Gaston nag ñu xam ko ci classe boo xam ne nii andi na ko ci làmb ay yoon yoon mu am lu mu jural làmb lu positif tey tam ñu Gaston ñu ne dafa bëgg ñëwaat def beneen super classe daal di boole ay mbër yu mag ñoom Balla ñoom Boy Niang ñoom Gris ñoom Sa Thiès ak yeneen i mbër. waa loolu de bu ko waxee dañ naan yàlla na ko réussir ndax yàgg na ko def ndax defe naa kalaafu Gaston Mbengue moom ku nekk fàttaliku nga ko te ku ne gis nga ni mu daan mel ak mbër yi ca génne woon defe naa tey bu toogaatee bu ñu dafa bëgg a ñaat dekkalaat affaire yi indiwaat kalaaf mbër yu mag yooyu ay Gris Bordeaux ay Balla Gaye ay Boy Niang ñëpp mu bëriluwaat leen naa loolu amateur yi duñu mën a def loolu rek ne ko kon alhamdu ñaan yàlla mu ñëw ba réussir la parce que tamit actuellement làmb soxla na ko daal dañuy euh, ci ki nga xam ne nii mooy Omez Omez nag euh, ñëw na ci coow lii bi nga xam ne tamit euh, mi ngi ko ne di def débat muy succession Alioune moom nag jàpp na ni ancien lutteur mënul diriger li nga xam ne nii mooy CNG bi te nag bu fekkee nag Alioune Sarr ci boppam la dafa war a toog def autocritique xool lu dox ci boppam ak lu doxul. maanaam daal mbër bu kon mbër bu bëri bàyyi mbër mënta jiite làmb ji wax loolu nit ku ne am nga droit wax sa gis-gis waaye tamit lenn rek laay bañ hmm, maanaam ci biir askan wala ci biir nit ñi. lu tubaab bi wax xaw ma discrimination lañ koy wax xaw ma nu ñu koy waxeeti noonu maanaam yàgg man lii mais ay sa mënut lii non nañu nañu na maanaam loolu nañ koy prouver ci capacité nit ki lu mu wane maanaam ci ay jëfam ñu àtte ko ci mais itam mbër mu mag pour man mbër war na mën a jiite CNG pour man sama gis-gis yaa ngi parce que li tax mooy ay sénégalais lañu ay nit lañu te itam mbër yi tey am na ci yenn ñoo xam ne si ñoom am nañ niveau boo xam ne nii war nañ jiite sax lu raw làmb waxuñu ne nag. dañ ko war a jiite non non non mais maanaam waruñu ko mën a jiite wala mënuñu koo jiite man côté boobu laa dul d'accord xanaa kay dañ naan boo amul yi capacité wala yi niveau war a mën a jiite làmb su ko rogee nag duñ ne mbër duñ ne journaliste duñ ne reporter duñ ne boykat wala nangam nangam dañu lay xool say critère mate ko ñu jox la ko pour nga mën ko doxal mën na nekk mbër mi mën na nekk si keneen ak keneen ay gens pour man waaw loolu moom mooy Alioune Sarr itam li mu ko wax am na solo defe naa nit ku solo daal. ñu dem euh, ci ki xam ne ni mooy assurance assurance euh, topp ñaari saison yoo xam ne ni assurance bëriwul suñu la di laaj est-ce que tey nekkul dafa disparaître ci scène bi. ah waa doy na waar de ñaari at de ku ko toog bëree moom

toj na ay mbapat te drapeau chef de l'état bu Kaolack bu Kolda ak bu Thiès am na lu mu fa prouvé. waaw kon day loolu bu nekkee ci moom te mu di xale te Fodé Douce ba di maamam waaw léegi mu tuddee boobu fils de Fodé yaakaar naa war na mën ñëw war naa mën a tamit am taxawaay boobu waaw loolu nag ginnaaw bu mu ko waxee ba pare moom la cay des nag mooy liggéey ak jéem koo jëfee waaw loolu rek moo ci des daal waaw kon mu ngi ci ay loxo na liggéey bu liggéey xëy li ci kanam rawul ay bët. Mhm. dañuy dem euh, ba tey si sunu lamb bi des fa ak euh, Tapha Tine sunu lamb bu ñëw tamit euh, ci participation ñaari tournoi yi nga xam ne def na ko muy TNT bi ak li nga xam ne ni mooy CLAF bi ci CLAF bi defoon na fa benn victoire ñaari défaite mu ñëw ci TNT bi am fa ñaari victoire ak benn défaite. waaw moo lay wan ne daal résultat yi bokkuñu ba CLAF bi moo jiitu woon mel ni foofa lam fa nam fa doxale baaxut ndax bu mu fay ñu bëri xalaatu koon loolu waaye nag gis nga Issa Pouye da ko faa daan la ko fa mu ñëw daan fa Yékini Junior jël bu rëy ca dernier combat ba TNT bi ñoom it bi mu ci duggee itam ñëpp xalaatoon ne moo fay gañe mais yàlla def mu ñàkk fa benn combat Ama Baldé daan ko mu nekkoon lu doy waar bett ñu bëri waaye itam yàlla def mu daan fa guy gi daan fa ki nga xam ne mooy zos kon moo lay wan ne daal mu mel ni mbir moom ah tanente na daal waaw waaw waaw ba tey ñu des ci Tapha Tine mais bi yoon euh, fële ci record lay doon mu ñëw ci record daal def euh, classement li nga xam ne ni mooy adversaire ami nee na ëmm mooy jiitu bu paree teg ci Lac 2 doog cee teg ki nga xam ne ni mooy Gris Bordeaux. waaw moom Tapha Tine loolu wax ci record ñett ñoo ñëpp ay adversaire am la bu amee ëmm lamb du du ko dàq lamb jànq la moom Lac de Guiers numéro 2 revanche lay doon ndax Lac Dakar daanoon ci kalaf bi ñu doon wax léegi moom Gris Bordeaux derby Medina naa boo tax kon ñetti combat ñetti mbër yooyu mu wax moom. képp kes ko si booleel ku ne lamb dana yëngu bu keroogee Mm-hmm. ñu dem euh, ci Babacar ak euh, ki nga xam ne ni mooy Salif Diouf di président Amalda Salif tam ñëw jox ay affiche am moom nee na li mu gis euh, du lenn lu dul Modou Lo Ama boobu wax nañ ko ba borom na bu am nee na tamit Reug Reug Sa Thiès la ak Siteu Papa Sow nag ñaar yu a wax moom jàppoon nañ ne taxaw na. waaw loolu am na solo Salif Diouf bu dee Siteu ak Papa Sow la boobu moom taxaw na yaa ngi de waroon nañu ko bëreel 5 avril yàlla ñëw ak corona bi amatul bu dee Reug Reug ak Sa la moom nit ñaa ngi koy wax boobu ba tey. bu dee ki nga xam ne mooy Ama la ak tamit ki nga xam ne mooy Modou boobu tamit mën nañu taxawoon na mais yàlla ñoo ko ay dogalam kon Saliou daal affiche yi mu tànn amin affiche yu am am solo daal te daa mel itam actuellement mën nañ ne benn dong moom lañ ci mën wax ne taxawul muy Ama mooy Sa ak ki nga xam ne mooy Reug Reug mais à part ñaari des moom mën nañoo jàpp ne lu taxaw la quoi euh, ba tey Abou Nour dem na ci ki nga xam ne ni mooy euh, di gën a yëngu parfois ci région de Thiès moom nag ñëw na ne am na benn final boo xam ne ñàkk na ko Dakar mais ci région yi gagné na fa 5 trophées. waaw mu mel ni kon daal daa mel ni daal am fi ay difficulté bu mel ni la cadre ordinateur defe naa gis nga ko àll bu fi duggee daan ko dafa jafe lool mais tournoi bu mu participé Dakar da koy ñàkk waaw mu mel ni kon daal mooy loolu daal xuma lu nu mu demee am na lu ci ne xëy na yéen ñi dëkk dakaar xëy na daa am lu ngeen <laughs> ñàkkul yu ngeen def ba tax mbir yooyu bu ñëwee fii duñ fi mën a def dara quoi. waaw kay yaa ngi tooñ mbir yi nekk Dakar. ah déet xam naa xam nga xam nga yow Dakar nga dëkk am na mbir yu dëkk Dakar <laughs> ñoom Korias Dakar lañ dëkk ay rëg-rëg ñu ñëw ay mbëri Dakar lañ ay rëg-rëg daan na toj Dakar génn toj si biti waaw loolu de am na waaw loolu de am na daa toj na Dakar toj ci àll bi de kon moom xaw ma lu xew daal ñu liggéey daal kon Ababacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre seen la euh, revue de l'arène di leen ñaanal jàmm fu ñu munti nekk si àdduna di leen ñaanal yàlla musal leen musal leen ci li nga xam ne ni mooy euh, jàngoro corona ba ñu fekkee ëllëg euh, nettali bi di ñaanal képp jàmm ak fu ñu munti nekk di nuyu sama borom kër bu baax. sa borom kër nu mu tudd del jaar ci turu Aïssa. Mouhamed ñaa séeri Aïssa Faye Baye Fata ak Njaga ah ñu ngi lay bëggee. <laughs> di nuyu internet yëpp ay safay di leen ñaanal jàmm ah di leen xam nga di leen jëfal di ñaan Sénégal yal def fi jàmm mbas mi yàlla jële ko fi xam nga gën a wàccewaat tension yi yàlla na yàlla gën a tàppe xol yi comme ni ko maam ta baax doon ñaane parce que ci réewum jàmm la ñu ne jàmm rek moo ñu jig te jaboot jàmmay mbokkam kon jàmm ji ñu am li Youssou Ndour waxoon rek waa nañ ko sant yàlla tey ñaan mu yokk daal mais ñaan yàlla corona bi jeex Sénégal jeex ci àddina bi di nuyu internet ñuy suivre ñëpp bellu ñëpp ak Babacar ba suba ak jàmm incha allah.